bi loolu wéyee nu fas noo dugal gaal jëme réewu itali noonu ñu jël pool ak ñeneen ñi ñu tëjoon dénk leen njiitu xare bu tudd yeliyus mi bokk ci mbooloom xare mu buur ñu dugg ca gaalu dëkku adramit guy taxaw ci teeru asi daldi tàbbi ci biir géej te aristark mi dëkk tesalonik ci diwaanu maseduwaan ànd ak nun ci ëllëg sa nu teer sidon yuliyus laabiir ci pool may ko mu dem ci ay xaritam ngir ñu ganale ko bi nu fa jógee nu dem ci biir géej leeru dunu sipar ci feggu ngelaw li ndaxte ngelaw li dañoo soflu ñu jàll géej gi janoog diwaanu silisi ak pamfili teer si mira ca wàlli lisi foofa nag njiit la gis gaal gu jóge aleksandri jëm itali mu dugal nu ca noonu nuy dem ndànk diiru fan yu bari ba janoog kaniid ci kaw coono bu réy te ndegam ngelaw li mayunu nu jëm kanam nu leeru dunu Kret ci feggu ngelaw li janook Salmon nu romb fa ak coono yu bari agsi ci berab bu ñuy wax teeru yu neex te dend ak dëkku lase fekk booba yàggoon nañu ca yoon wa te dem ci géej daldi aytal ndaxte jamonoy kooru yawut ya wees na moo tax pool digal leen ne gaañi gis naa ni tukki bi ëmb na musiba ak kasara ju bari waxuma gaal gi ak li mu yépp waaye sunuy bakkan sax xej na ci waaye njiit la sobanteel waxi pool dëggal dawalkat ba ak boroom gaal ga te gannaaw teeru ba neexu la lollikoo ñu ci ëpp mànkoo ci jóge fa dem ci biir géej ngir wuta agsi finiks bii teeru dunu kret te janook sowu suuf ak sowu kaw nu lollikoo fa noonu bi ngelaw lu woyof liy jóge sudd wole ñu defe ne mën noo sottal seeni pexe ñu wëgg diigal daldi tefu ci dunu Kret waaye nes tuuti ngelaw lu wele penku ñu di ko wax erakiloon jóge ca dun ba ne milib ci suñu kaw mu ëpp doole gaal ga daldi ko wat ba nu bayliku daldi yàll ñu daldi daw leeru dun bu tuuti bu ñuy wax koda ci fegu ngelaw rawale loo ga ca kaw gaal ga ak coono bu bari bi ñu ko yëgee ñu fab ay buum ngir laxas ca taatu gaal ga ngir ragal daanu ci suuf su nooy suñuy wax sirt ba noppi ñu daldi sànni diigal ngir wàññi doxub gaal ga ñuy yàlle noonu waaye bi nu ngelaw li sonalee bu metti ca ëllëg sa ñu sànni la gaal ga yeboon ca géej ga te ca ñetteelu fan ba ñu sànni ak seeni loxo jumtukaay yu ñu jëboon ngir fàggu noonu jant bi ne meng te biddiw ne mes ay fan yu bari fekk ba tey ngelaw li di wol ak doole ba sunu yaakaaru mucc gépp tas bi loolu di xew fekk gëj nañoo lekk pool daldi taxaw ci seen biir ne leen gaañi li gënan mooy ngeen déglu ma te bañ a jóge Kret ba indil seen bopp musiba ak kasare jure ji léegi nag maa ngi leen di dénk ngeen takk seen fit ndax gaal gi rekk mooy yàqu waaye kenn ci yéen du dee ndaxte ci guddi menn malaaka dikkal na ma jóge ci yàlla sama boroom bi may jaamu mu ne ma pool bul tiit faaw nga taxaw ci kanamu sesaar te yaa tax yàllay aar bakkani ñi nga àndal ñépp moo tax gaañi takk leen seen fit ndax woolu naa yàlla ne lim ma wax dina am waaye war noo luf cib dun ca fukkeelu guddi ga ak ñeent ñu nga doon jayaŋ-jayaŋi ca géeju adriyatik noonu ca xaaju guddi dawalkatu gaal ga defe ne dañoo jege ci suuf ñu sànni nattukaay ba ci biir géej mu jàpp ñeent fukki meetar dem ca kanam tuuti sànniwaat ko jàpp fanweeri meetar ñu ragal ni ñu fenqu ci ay xeer kon ñu daldi sànni ñeenti diigal ci geenu gaal ga di ñaan bët set waaye ci kaw loolu dawalkat gaal ga taafantaloo sànni ji ay diigal ca boppu gaal ga fekk dañuy fexe jël looco ga ba raw waaye pool ne njiit la ak xarekat ya bu ñii desul ci gaal gi du ngeen raw noonu xarekat ya dagg buum yay téye looca ga bàyyi ko mu wéy bi bët sa tëgul pool sant leen ñu lekk mu ne leen tey mooy seen fukki fan ak ñeent yu ngeen ne jonn lekku leen mosuleen dara maa ngi leen di sant nag ngeen lekk ndax noonu rekk ngeen mën a rawe ndax genn kawar du rot ci yéen bi mu waxee loolu mu fab mburu sant yàlla ci kanam ñépp damm ko daldi ko lekk bi ñu gisee loolu ñépp dëgëraat ñu daldi lekk ñoom itam mbooleem ñi nekkoon ca gaal ga mat na ñaar téeméeri nit ak juróom ñaar fukk ak juróom benn noonu ñu lekk ba suur daldi sànni pepp ma ca géej ga ngir woyofal gaal ga bi bët setee nag xàmmewuñu réew ma waaye séen nañu ruqu tefes noonu ñu fas yéene ca teeral gaal ga bu ñu ko manee ñu dagg diigal ya bàyyi leen ci biir géej yi waale baar ba ba noppi firi wiiru kanam ga jublu ca tefes ga waaye ñu dal ca tund suuf ca bereb bu ñaari korong daje gaal ga daldi fa boppu gaal ga nuur bu baax ne fa tekk te dooley duus ya daldi toj geen ba bi loolu amee xarekat ya bëgg a rey ñi ñu tëj ngir ragal ñenn ñi feey ba raw waaye njiit la bëgg a musal pool mu tere leen pexe ma mu sant ñi mën a feey ñu jëkk a sóobu ca ndox ma ba jot suuf sa mu sant ñi ci des ñu def noonu langaamu ci ay dénk mbaa ci tojitu gaal ga noonu ñépp jot suuf ci jàmm ak salaam